kay ak Abdoulaye Bob leen ak jàmm yéen yu bari xëyandoo tey jéey ji am démb ca yoonu yaraax yéen kaay bi ne ab tata moom lañ fa dogale am ñu ko fa jóor ah, cocktail molotov ba loolee jur musiba ñaar ci ay bakkan ñoo ca rot am ñu ca jëlee gaañu gaañu toll nañ ci juróom yéen kaay bi di Walf gis na Sénégal ak jafe-jafe fitna gi fi am ak bakkan yi ci rot Sénégal mu ngi jël yoon gu doy waar goo xamante ne lu ne mu ñatta tab bi xew démb ca yaraax nag jaaxal lool Antoine Ngom jawri gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi jàpp ne jëfu terroriste la gis ca yaraax ndax ñoo ñooñee dañoo jógoon ngir fitnaal ak fat ay bakkan mu ngi ci yéen a kaabi di Walf Quotidien yéen a kaabi di Le Soleil génnagul yaraax fala jéey ji amee démb cocktail molotov lañu ñu euh, jóor ci ab woto euh, bus tata bu jóge woon ca kunun doon jëm ca Colobane ñaar ci ay bakkan ñoo ca rot euh, juróom jëlee ci ay gaañu gaañu yu métte métti métti na la fa xew jawri gi ñu dénk wàllu na ñu jóg ngir euh, def fitna ci réewum Sénégal euh, la ñu jëf euh, jëfu terroriste la ci mim réew di Sénégal le peuple quotidien génnagul Sénégal ak attentat terroriste ma ñu ne am na démb ba jur ñaari bakkan yu faatu am ñu jëlee gaañu gaañu waaye tey jii nag enquête ubbi nañ ko ca bokk na ci li nga xamante ne ay doroon takk der yi maanaam police ak gendarmerie doroon yaa ngi tim Ndakaaru ñu ngi wattu kaaraange askan wi ñu ngi sax ci yoon goo xamante ne buñ ko toppee mun na teg loxo ña def googule musiba démb ca yoonu Yaraax mu ngi ci yéenekaay bi yéenekaay bi di enquête ne gulet la waaye nag euh, kawteef la euh, lu yéeme lu doy lu tiis lool moom la Sénégal dundu demb ci ab euh, attaque goo xamante ne cong la woto bus cocktail molotov lañ fa joor woto ba tàkk jëppët saxaar sa ubale am ñu ca jota ñàkk sen bakkan juróom-ñaari samba boy def katu ñaawteef ñoo songo woto googule jël la yoroon laata ñuy daw yéenekaay bi ne jawriñ gi ñu dénk wàllu kaarange bi réew mi ne matuwaay ca war nguur gi dina ko jël xam ci wàllu kaaraange moo xam ci wàllu yoon euh, bokk na ci enquête moom la xëyee enquête gang ci am euh, le mandané attaque mortelle goo xamante ne am na ca yarax euh, fitna googule wàllu terroriste ci xolu ndakaaru ñaar ci ay bakkan ñoo carot rot yéen kaa bi xëy du ñu dégtal na bis googee doxe ba noone muy takk jëppët ak la di cocktail molotov yéen kaa bi di turbine di ñu ko dégtal congum bisu tata foofe ca yarax juróom-ñaari agresseur yañu ne ñoo songu woto oto ba faat fa ñaar ci ay doomi aadama am ñu ca jëlee gaañu gaañu yene cabinet bokk na ci ñoo xamante ne euh, daanaka dañ fee jaare lakk ba xam euh, ci euh, googu lépp fitna Antoine Félix Diome gis ne wallu terroriste la bokk na ci ne yoon nga ñu jël ngir enquête ba dañ ko wéel bokk na ci tamit Pastef métitlu la xew demb ca yoonu yaraax mu ngi ci yene cabinet di turbine réew mi quotidien réewum Sénégal gonto na tiis ab woto bus tata ma ñu song jor ko li nga molotov lañ fa dugal mu tàkk jëppët eh, wàllu terrorisme ca yaraax moom la yéene kaa bi xam ne ñaar ci ay doomi aadama ñoo ca faatu ña dugg song googule woto bus tata jël nañu téléphone ak bépp jumtukaay ya client ya yoroon chauffeur ba jaaxle lool ma ngay nettali na mbir ya demee nañu dogale woto ba benoone ñu koy sànq yéene kaa di eh, source di ñu dektal eh, Sénégal ci jamono ji ñu ngi ci guddi gu bër setagul fitna gi am ci géew politique bi ay bakkan di ci rot woto tata gañu song dem ay bakkan rot tax yéen kabiri source a gis ne tey ji euh, safara sangi ni euh, jëppet la def euh, ci mim réew deret gi tuuru na ay bakkan rot nañu mu ngi ci yéen kabiri source a yéen kaay geneen 24 heures mu ngi ñu dégtal ne kaaraange sax amatuñ ko ñi yëngu ci wàllu paj mi seen bakkan a ngi ci xottu gerte ndax saay su ne ñu fitnaal leen ba tax na sames di kuréelu syndicat ga leen boot ñu ngi sàkku ñu yokkal leen kaaraange gi ña ngay artu di wattu di sàkku ci nguur gi mu gën leen a taxaw ngir ñu mun a liggéey ci anam yu mucc ayib yéen kaabi di turbine ne te tëjum kaso Ousmane Sonko euh, jur na fitna ci Sénégal fitna googe sax am na ca banlieue bu Ndakaaru am ndaw gu ca ñàkk bakkanam ca Ziguinchor amoon ci ñaar ci ay doomi aadama yu ca jota faatu euh, turbine yemu am na beneen ndaw gu leen ñeenteel mujjee na faatu gannaaw balu fetel gañ ko dóor ndaw googe mu ngi faatoo ci Nema bu ñu sukkandikoo ci euh, turbine yéen kaabi di l'info ne yeewi askan wi taxaw nañu tembe ngir jàmmarloog nguurug Macky Sall ñaawlu nañu tëjum kaso Ousmane Sonko ne place am eh, Doudou Sine eh, bu ñu sukkandikoo ci Aïda Mbodj mi xamle ne jafe-jafe la ñu yàgg teg Ousmane Sonko eh, sonal nañ ko wit ci jamono ji sosal nañ ko tuumal nañ ko tëj nañ ko kaso daal di tas partem Aïda Mbodj ñe bi le doxalin àndut ak démocratie xàmmeetul Sénégal ndax démocratie tàmbale na fee tumuranke leneen ci xibaar ci yene kabidi l'évidence mu ngi ñu dektal ne ay pexe la yoo xamante ne nguur gi yàgg na ko nas ngir gàllankoor Ousmane Sonko nasaxal politique am rawatina euh, jële fi partem di Pastef l'évidence mu ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen kaay geneen les échos mu ñuy dégtal li nga xamante ne mooy Pastef googule euh, parti ba amatul jor gi ñu denk wàllu karange bi réew mi jël na dogal jëlee ko fi yéen cabinet nguur gaa ngi ci yoonu tej euh, makkaanu Pastef ba kenn dootu fa mun a daje ay jege ñaare Ousmane Sonko jot nañ ko jot nañ ko ñaawlu yéen cabinet Parcelles Assainies maire gox ba euh, di Jamil Sané teg nañ ko loxo teg loxo euh, Fatima Zahra Wague bu Pastef euh, tey jii ñu ngi woolu Maimouna Dieye maire bu Padoua war ko déglu yéen cabinet Les Échos moo ñu ko yëggee yéen cabinet L'Info ne Mamadou Lamine Diallo kontaanul benn yoon ci doxalinu njiitu réew mi Macky Sall mi mu ne njiitu réew Macky Sall jëfuma tey lay amal ci jamono ji ku mu neex mu tabb ko jox ko ndombol tànk am na ci ay ministre am yoo xamante ne daanaka jaaduwul woon ñu jox leen ndombol tànk ndax amuñu lijaasa ga ca war li xew ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak APR Mamadou Lamine Diallo na jàpp ne euh, duna ay parti politique ay GIE lañu ba tax na fu candidat Benno euh, mun naa jafe loolu yéen a di critique xëy ko déggal ne njiitu réew Macky Sall ba léegi euh, tànnagul kay doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ba tax na Benno mu ngi ci guddi gu bër setagul yéen a bi di xëy du ñu dégtal lu aju ci li nga xamante ne mbéy mi ay jigéen ca kaw gi di yëngu ci wàllum mbéy mi jóg nañu ngir delloo njukkal Adja Njuk Mbay gannaaw bu mu euh, daanaka béyee waar wu yaatu euh, ci wetu béykat yi tax ba jafe-jafe yu bari euh, jota saafara wu yéen kabi de moo ñu ko yëggee mu ñu dégtal tamit njeextalu saison bi ñeel lamb ji cooki final wala boog cooki fin ca la ñu nar a dem ci diggante bay Baye Mandione ak bébé Diène ñaari mbër yooyu le daan leen géewal